ndaw si sax classe bi dem woon xaw ma daal kanam ci mbokkam daal moo nekkoon classe bi dem. ma ne la mos fële la ne Kanifing la ne ko. ma ne la moo tax moo tax xam na xam na loolu sax non xam naa ne daal som xaw daal gis na fii dëkk bi dafa ndaw. ah very small country. waaw ba pare problème si nii nii xam nga man démb ma la gisee sax dama rus. waaw waaw mosuma mosuma loolu. waaye gis nga lii yëpp si suma kanam la xam. waaw man billaay duma fen. waaw waaw ma. man de si suma dundam dara jaralul ma a noonu. particularly ci false representation bi naa ngi dara ci man maa ko mag. waaw booy bi man maa mag maa ko si liggéey bi. maa ko ci fi si bëri maa ko frustré. waaw waaw fan man yàgg yoo xam moom. waaw waaw 27 years. maa ngi so lu moo livin si man la ko dee jëlee. waaw advice lu moo def daf ko maa ko dee def ak moom dama ko jiital rek man tam ma si kawam hmm. jos ne xam nga bëri na loolu. waaw waaw waaye bu ñu doon joob di joob joob xam nga. waaw waaw man li ma ci naxari rek mooy mooy dóor bi. dóor bi dóor bi rek moo ma ci naxari. lifin lifin la xam nga yu kan seen ne dóor la. waaye dama laa waxal ne daf ko puus. waaw daf puus bi moom puus bi moom moo teer. waaw puus bi moo daaneel ndaw si. bi mu daanoon nag xam naa ne xëy na dafa laal si xëy na taabu bi ko taabu la quoi. mën a sànn. waaw soo xëy na xëy na xëy na foofu la gaañoo si si si si noosam bi waaw. xam nga ndaw si ndaw si dafa wax ne daf daf mbéj puus ko billaahi wallaahi tallaahi hmm. mun na la koo waatal ne ah. suma kanam la man maa ngi taxaw billaahi ah. wallaahi tallaahi man duma duma fen si loolu ah, hmm. te suma suma statement bi soo ko demee bind na te moom itam bind na ne dañ ko def ko puus bind na ko indi mu ngi rekoon waaw xam nga xam nga Apollo Apollo Apollo jaay su léegi nii hmm, léegi nii waaw waaw léegi nii euh, euh, euh, réew

excess bi mu pare woon a fees waaw dinaa dinaa dinaa dinaa fekk soo ne du ko fees that's right waaw loolu wax naa ko ko ba pare wax naa ko assist ci boppam waaw moom dina mooy jël that responsibility waaw man a saa nga ba pare formal approach yi bu nga xam ne daf koo daf koo lifin mu mu ina xaw ma la naka ngeen ko buggee dama la dafa waxoon ne moom lifin mu mun a def mu ànd ak man xam nga ñu ñëw si famille bi loolu la waxoon waaw am na tamit ci suuf xanaa sànq xam nga fi ñu dafa ndaw. waaw ah nekkee beneen broda seen beneen broda bi sax mu ngi liggéey foofu noonu xaw ma naka si si fan xanaa sànq. waaw dëkk bi dafa ndaw. dëkk bi dafa ndaw kool kool laal rek kool laal. loolu da ndank ndank baax. connexion waaw. waaye xam nga façon yi moo dee dafa nekk a lesson. xanaa sànq. waaw so moo tax it was it was in bad that ne xam nga. démb maa ngi doon try na xanaa sànq xam naa li fi na xam nga téléphone bi la woon. what you did mm-hmm. so any remorse. Lolo mo chigi na hadi sa. Eh, Because eh, at least you should show at least show some remorse. Mm-hmm. Wa dama business, dama ko believe dama ko nga ham ham ki bu moo commencé sax yow soo ko dee xam. waaw billaahi wallaahi tallaahi. waaw waaw ba pare yéen a teg son si daf dee lifin bu nga xam ne soo soo soo àndatul sa sago rek. waaw di nga def lu nga xam ne xam nga after da nga koo regret. waaw waaw so so man de definitely man from the bottom of my heart. waaw definitely maa ngi apologize. waaw waaw on behalf of uh, himself ak ak uh, everybody. waaw waaw waaw ndaw si nag xam naa ne definitely dafa feel. Hmm. xam nga disappointed. waaw uh, humiliated. waaw and xam nga all those things xam nga. so she can say anything. waaw yes that's that's that's that one blame moo ko si si dara. man la doon waxal. waaw man. definitely. man la doon waxal. man man la ñëw di ma di ma di ma yàkkamtiloo. waaw mën na sànq. waaw gaawal gaawal dama lifin bi parce que gars yi ngeen ko. waaw te moom dafa lifin mu ne ko. waaw man dama ko ko waaw jafe li ma ne ko ah yow tam madame. yow yaa mujjee ñëw léegi léegi bii. baalal ma ma jekkali ji rek ma ñëw jël la. waaw. maanaam waaye da nekk force because xam nga coono na bu ñëwee mu ngi wàññi bagage yokku bagage wàññi bagage yokku bagage ba pare ñëwaat si indi en yaa ngi war a fay booba booba ñaata xaw eighteen thousand xaw ma dollars I don't know four hundred dollars waaw four hundred dollars waaw four hundred dollars that's about uh, eighteen eighteen thousand nine hundred and xaw ma ñaata almost nineteen thousand xaw ma nine hundred and twenty dollars. Ah, da ngaa gis ne bagages yooyu yëpp sax léegi mënatuñoo. non dafa dafa leen yóbbu ay jeeg ñi nag ay nit nag ay yeneen dugub nag yooyu yëpp si bëri sax mun naa am yaaxu laay sax. waaw yaaxu nañ sax. yaaxu nañ yooyu problème waaw voilà soo façon yooyu li ma laa miin mooy ne xam nga mu ngi amoon date stress itam. waaw. Ah. man sax nga donc mënut a lifin dara xam nga. Hmm. waaw ñu naxaroo woon already bi moo ñëw si office bi defe ne hmm. lii nag moo indi moo spark problème bi yëpp. waaw ah. waaw because ñu def ko ne rek xam nga Ah, ah, ah, mayal ci caas tuuti su ko defee mu nga wala nga toogee nii su ko defee nga mun a relax. waaw mën na loolu la. <laughs> Eh. waaw waaw eh, waaw. nga dafa dem na si airport bi around three o'clock dafa naa few minutes after three. non man even even before check up sax. check in kay. nga xam ne soo na na si wàññi weer yokkal. waaw. ak yooyu yëpp ëppul man dama dee understand xam nga man xam naa yooyu loolu yëpp. waaw understand na. waaw ba pare man ma stop naa issue bi ba everything. waaw waaw. danaa si gis ah even Halifa Sallah sax. waaw gis nga after incident bi sax. waaw Halifa Sallah ñëw ñëw fa. waaw ah Halifa moom si boppam sax ku naa ne dafa léegi woon xaw ma naka daal. waaw soo ñu ngi si lifin yooyu noonu xam nga waaye ñu bañ ko fee bàyyi. waaw because of lifin yi xam nga uh, state of sax yeneen. waaw order lifin understand. waaw waaw. soo eh. soo ñu ko ba moom ñaan naa ndaw si sax. ba ba lifin ba ñu ne ko ok amul problème xaaral mu faral saabu rek benn may opté lifin bi si la ndaw si nag bu mu wàccee si suuf daal xam na xolam jeex rek. ne dootul dem. balaa moo dem dina seet exemple dina def nii wala non ok maa naa a soo si laa ne opté nañu wàcce ba nga sax. waaw waaye dëgg-dëgg daal man trou yu laa mën a ñëwee. mën a xam not anybody else. waaw regret naa everything nag waaye lool ci mën a lifin daal ba nga ne daal mu bàtte situation understand yeah. okay then then he apologized yeah. understand yeah. To, to, to, to the lady and to the yeah. family yeah. and then you definitely work yep understand mm. Mm-hmm. then then you you you, you yeah. uh, no, apologize. at least you apologize at least that shows remorse waaw waaw so lenn laa doon lifin nag moom dina tey mun naa I can even come to you waaw mun naa ñëw si kër gi man ak moom waaw yes ne necessary sax mun nañoo def loolu mën a sànq te pare ñu déggal itam li fi ñu xam nga li ñu wax jawaati na wala duwuñ ok waaw waaw please all right waaw ok let euh, euh, let man dinaa la naa den den time bu ñu ne mën a sànq man ma ànd ak moom ah, nga xam suma itinéraire jëkk soo pare waaw waaw ah. waaw waaw Please. Okay. Please, Roswell. i Bye. All right, thank you. Thank you. All right.